journée Dieye dimanche 13 février ci diggante Liss Ndiago ak ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur Liss bi fi mujjee Ada Fass a ko daan bolo boog Tapha bi fi mujj Ada Fass ko daan Liss bi fi mujj moo daan ki nga xamante ni mooy Thiatou Rebeuss ku ci nekk ñoom ñaar am nga benn avertissement arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na Tapha Mbeur laaj na ki nga xamante ne mooy Liss Baye Djily gis nga ñaari mbër yi Tapha Mbeur la mooy avantage am ci làmb ji kii Liss Ndiago la mooy avantage ci làmb ji Baye Djily. waaw Ousseyn ñoom ñaar ku ci nekk dafa am lu nekk sa mënin Liss Ndiago tay su doon maay moom damay jàppanteeg Tapha Mbeur bëre wuureeg moom ci bëre ba nax ko Liss Ndiago tay avantage am du woon xeex ak Tapha Mbeur Tapha a ngi arrière. xaw ma na lu muy arrière dafa am mbër arrière na génn saako yi sortie délibérée la def loolu nag am na lu ko ci règlement bi wax mbëri nañu bàyyi tegtal bu bari bi ndax tegtal bu bari mën naa yàq làmbam dafa fi mu toll ni mooy bëre te pour mu may booy bi confiance mooy mu won ni ko dama laa ragal booy bi agressé ko dox ci ko kawam bëre dafa am mbër na avantage am mooy mu jéem a xeexal riis daa ko moom en tout cas ñoom ñaar ku ci nekk pare na combat bi respecté na combat bi Ousseyn te combat bu gaaw lay doon Tapha Mbeur jàpp na Liss wala boog Liss jàpp na Tapha Mbeur abi sëb la léegi door na moom Tapha door na ko mu daanu Tapha door na Liss ñaar mu daanu. bett na ma oh! Tapha Mbeur door na ko ñaari door mu daanu. mais door bi mujj bi du yoon door na ko mu daanu mais da door mu daanu mu dooraat ko loolu rafetul ci làmb kaaw xoolal supporter yi xoolal xoolal lii dafa ñaaw xoolal supporters yi ña ngay toj siège ya xoolal lii xoolal lii. dafa am dafa ëpp doole Liss Ndiago lii dafa ñaaw dafa ëpp doole. dafa ñaaw Ousseyn tey wax naa la ko. bi dafa am indi ci làmb ji loolu moo doon làmbam tey dafa am tey ak dal ak tekk la. tegal tegal lii.